bismil ilaa iksinil ak daara yàllaawu sarsi baqaa abi li fiika yàllaawu bismil ilaa iksinil ak daara yàllaawu sarsi baqaa abi li fiika yàllaawu yaa la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 نفسي أيا برامتي ألا ألاقي درا منك يا الله أثاري ملاسي أرجو برامتي ألا ألاقي درا منك يا الله مليك يميني وعقل مثال يا مليك بلا إسان بن بيجو دين منك يا الله خدست سري يا قدوس متليا أني وأن كردي تدار يا الله وكل يام ويا بنفسي بيتي إن منك يا الله أنت سلام لاسي سلام تكل يام ويا بنفسي بيتي إن منك يا الله يا مؤمن في جنة بدر ما شاء الله كن موم شيري أجالو taalibe Serigne Fallou eh mi ngi nii borom ngalam yaa ngi nii borom or yaa ngi nii teel a xëy guddee wàcc bëri jom dal baa ngi nii Baay Faal yaa ngi toog góor yàlla yaa ngi toog góor yàlla baa ngi nii titre foncier bu ne muut la fi am di ko rëkk normalement xale yi di ko dalal te bool wu daraa ki wax mëstam laaj gi sa la moo koy rëkk normalement ama jot jeeg bi ci point bi dëgg la na tàmb. Ah, nga gis laxaat li nga xamante ni moom la def ci màggal gi ah yombul benn yoon yaakaar naa dajale ay ndaanaan yoo xamante ni ah ku ci nekk rek war ngaa mën a am foo xamante ni di nga fa dal Touba waaye moom dafa jël ñëpp rek dajale leen ni leen maa leen jaboote sama kër ngeen di màggalee ren di xar ren di nag ren di gileem mu nekk loo xamante ni yombul tey yaakaar naa ni tey ji ni ci benn loxo wala ñaari loxo an lan ngay wax ci loolu. waa macha allah Abdou loolu nit eh, ci ci ci laxaat la eh, parce que baax alalu yàlla la. parce que mooy li ngay wax rek eh, tey képp koo gis mu fi ndaanaan rek toog fi ku nekk rek am nga foo mën a ne voilà am nga bon mag man am naa mag boo xamante ni day dalalaate Mbàkke chaque at fa daan daal dana nee na lan laa ko def ba ñëwatuma fa waaw mais macha allah xam nga li may wax rek eh, nit ki dina dem ba remplacer eh, ba bay présente mbokk ci yow nit day remplacer mbokk ci yow laxaat suma xarit la e baax na yaatu na képp ku fi daanaan tamit teraanga googu mu la ji macha allah moo tax foo mënoon ne doo ko gis da ngay ñëw dalal ko et eh, moom moo yaatu et eh, moom moo baax moom moo ñu bëgg moom moo ñu fonk te ñun nag kenn moomu leen gars yi nee nañ ku la teral moo la teral moo la tëral waaw gars yi nee nañ nag ah bu la nit tëralee teral macha allah boo fa ñëwee bu la neexee dalu. laxaan moom waxuma la teral rek mais moom dalay jox nga lekk jox la nga naan jox la xaalis nga yóbbaale. waaw loolu am na. e man sama oto laa gaare. su ma ñëwee laxaat daf may jox cinquante litres essence. et eh, ne ma góor a waajal nga ñëw et eh, parce que boo ñëwee nag góor a et eh, fu ma bëgg a dem ci Touba man ak yow da ngay dem maak moom ñu ànd kër Ndeye Diagne Gueye asulaw de ñun ñëpp def koo fa et puis dem mu naes loolu macha allah ñëpp doon ko fa xaar comme moom jaral nañu ko mën naa terale ba pare mën naa ubbi kanamam xam nga tamit ki lay may million même bu la yëgul million bi neexul et fii nag li ñu fi gën a neex mooy yëg gi ak laxaat wàcce boppam di tëdd suñu mat laa di fanaananoog ñun et di kaf ñun di reyoog ñun macha allah loolu rek moo ñu neexaa ñun ak yéen ba tey ah ci gi ñun ak yéen ba tey kër fi nga xamante ni moom moo di laxaat gise ni ma ko waxee sànq sama biir wax nee naa leen ay ndaanaan la dajale fi nga xamante ni ñoom ñoo di këram ki nekk nag sama càmmoñ kenn dootu ko présenté fi nga xamante ni moom moo di Sénégal moom mooy borom tissu yu baax yi képp ku bëgg a sañse te seeti woo ko yaakaar naa doo sañse moom mooy kan borom bala mañse sañse ñu gën ko xam ci kan njuga caam ñu fekk fi nga xamante ni moom moo di kër laxaat gisee ñoom ñaar ñu ànd ànd bu yàgg ànd ànd ba tey jii nii mu war a ñëw fii nii nga xamante ni moom moo di këram màggal see fi euh, dañ koy daal di taalal suñ micro rek bàyyi ko mu nuyoog internet yi nga xamante ni ñu ngi koy seetaan ñu daal di jublu ci waxtaan bi ci digganteem ak laat gisee euh, bala may sa ñu ngi lay nuyu di la ziar di la dalal bu baax a baax ci sans limite tv bismillahi rahmaani rahim maa ngi lay nuyu sëñ Abdou borom sans limite di nuyu euh, téléspectateur surtout sans limite yëpp di leen wax ni maa ngi ziar ñëpp di baal ñëpp àq di baalu ñëpp àq ci bisu màggalu Serigne Touba bi di wax ne fépp fu waay nekk lépp loo sàkku ci màggal gi rek yàlla na la ko yàlla suñu borom defal ci barke borom Touba mi waral tey jii lii lépp waaw. macha allah balaa ñuy ñëw ci màggalu Laat Gise gi dañuy ñëw ci sa diggante ak moom ba pare. waaw sama digganteeg moom nag euh, mën naa ne talaata la ak àllarba bés doxul ci diggante bi ndax dañoo yàgg <coughs> tey jii boo xoolee ba ñuy ànd ay jeunes la woon mën naa ne loolu du du tey loolu démb la ànd di defandoo lépp nag waaw macha allah yàlla suñu borom du ñu dimbali. waaw bi ñuy ñëw fii tuubaa di màggal si boobu demeewul woon nii boobu mën naa ne sax ku ci nekk dañ daan taqale lu ñu indi Touba waaye amoon nañ jom ju toll ni nag fu ñu mës a dem di fa dal dinañ mës dinañ gàddu dara yóbbu pour fexe euh, bokk ci màggalug Serigne tuubaa gi waaw kon mébét la boo xam ne dañ koy yàgg ànde yàgg koo sàkku ci barke borom tuubaa macha allah am na solo lool ñu gis dal bi nga xamante ni moom la laxaat def dalal waa ndakaaru dalal ay xaritam ay am di jaamam ay mbokkam ñëpp kenn desul yaakaar naa képp kuy star rek fële nga xamante ni moom moo di ca ndakaaru bàbbeeku nga ñëw fi nga xamante ni moom moo di këram ba ci yow mi ñu gis uh, effort yi nga xamante ni def na ko ci ak yokkute gi nga xamante ni am na fi uh, ku xool gi gétt gi nga xamante ni laxaat uh, def na ko xar nag bàyyiwul dara ak bernde yi nga xamante ni depuis ba ñëwee ba tey moo ngi fi ana lan ngay wax ci loolu waa loolu lu yàgg la loolu du tey parce que boo xoolee màggal gi mooy li ma la wax rek ñun sëriñ Touba rek moo ñu ñor waa ci sëriñ Touba la ñu ànd ndax ànd bu dëgg boo gis rek day am lu leen liyee te lépp loo xam ne rek dafa dëppoog diine bu liyee ay nit rek day doon dëgg loolu mooy xaq te xuloo xaq wala kaana mu ran màggal gi bi ñu fiy ñëw dama ne la ay jeunes la ñu woon di dal kër soxna Ndey Faatu Faal di fa àndandoo yàlla suñu borom di mu ñu dimbali muy suñu mag ju baax nag. vraiment ma koy remercier de passage ndax tey ji idée yi yëpp ci suñu bopp ci moom la jógee ndax ci moom lañ daan dal mu ñuy toppatoo yàlla suñu borom dem ba dogal man ak laat ñu yor màggal ga màggalu Tuubaa bu jotee dañ koy bokk màggalandoo ko ay ati at ba yàlla suñu borom dogal mébét bi nga xam ni moo nekkoon ci suñu xel ak ci suñu xol mooy sanc fi màkkaan fii ci Tuubaa yàlla defal ko ko moom sama doomu day laat gisee ñu ñëwaat tamit continuer waat fi di fi defaat màggal gi kon loolu sant yàlla la yaatal la kon Serigne Touba nag mi ngi ñuy dimbali macha allah ndax Serigne Touba képp ku ko nekkal rek te muy dëgg ci yow dina la woon boppam. kon lii day wane ni ñun li nga xam ne ñu ngi koy def muy màggal gi ak xir giñ ci am ak ngëm-ngëm giñ ci am liñ doon def li Serigne bi diggee woon ak. taalibe mi ngi ñu koy defal macha allah mooy lu waay def ci loo mënul ma fay la lu la jomm kon waaw loolu moo waral lii lépp ñuy sant yàlla bu baax ma waaw laa dëgg la sama frère la kooku sama lépp la keroog bu muy xewle di tudd dafa ñëw foofu bàyyi li muy def yëpp jàpp ma aussi def ma comme bu mbokkal nday bàyyi daf may conseil daf may woo daf ma jàpp daal sama nit la mënu ñàkk nag tubaa xat na mais il faut ñu ñëw fii xool seet si ko waaw bi nga ñëwee fii lan mooy sa yëg-yëg ci këram gu yaa njëkk yi kontaan ci moom kontaan ci moom trop parce que li yombul yombul parce que laat am na ay nit ñu mën a dalal am na am na Touba fu mu dugg mënoon na toog xam nga di dalal di dem di comme comme ñi ni ko ñëpp di defee comprendre nga mais dafa jël xaalisam bu bëri vraiment def ko ci kër def dal yu am important sama euh, di indi fi dajale ñëpp daal di leen bégal te fii ku fi ñëw xam ni ay millions wàcc na fi ku fi ñëw xam ni fii xaalis bu bëri yàq na yàq na ko daal xam nga euh, yàlla ko sëñ Bamba fay balaa déwén yàlla sëñ Bamba ful ko ba mu gën a yokk rek waaw gën a yokk ana lan ngay wax tey ci soxna am su baax si ki nga xamante ne moom moo di Adja Lo gannaaw koo fi laaj tey mu ne la duñ wax benn yoon te ko ci boole waaw kooku moom moo moo eggale chantier yi kooku moom moo ñëwoon fekk chantier yëpp en chantier mu eggale lépp nit ku baax ku oyof jàmbaar góor la kooku jigéen jigéen jigéen ju mat gën góor la daal vraiment suñu série boobu di ko ñaanal yàlla yokk ko gudd fan gu ànd ak wér ak njaboot gi mu dund ba njaboot gi di ko fay lépp lu mu mus a sonn ci laat sonn ko sonn sonnal ko ci këram ak jàppale ko ci liggéeyam. ana ren nan nga gisee màggalu Touba gi ni mu daw dawme yaakaar naa ñun di Ndakaaru Ndiaye kenn kenn kenn desatu fa gis nga embouteillage bi yoon wi nu mu méttee nit ñuy ñëw dëkk bi xat na tàng na métti na. waaw sant yàlla rek sant yàlla la parce que màggal Touba moom noonu la chaque année rek amul tànk ginnaaw comme ni ma koy waxee. chaque année day gën a yokk chaque année day gën a neex na gën a neex di gën a di gën a comme ni ko sëñ bi di waxee sant yàlla lépp xéewal la daal parce que lépp rek nañ ko def mbégte noonu la affaire yi moom bu yaatoo rek euh, mu xat te day métti te day gën a xat te nañ ñaan yàlla loolu daal safi baqaa bi bi fiika yàlla yaa man lawal amru yaa man laa sharika lahu wa ma lil waad لذيك يا الله jërëjëf Ahmadou Bamba jërëjëf Xaadim Rasool jërëjëf Ahmadou Bamba jërëjëf Xaadim Rasool jërëjëf Ahmadou Bamba jërëjëf Xaadim Rasool jërëjëf Ahmadou Bamba ki waral jotaay bi mu ngi nii kii mooy Laat Guissé yaakaar naa ci kër gi la bokk kenn dootu ko présenté te ñëpp xam nañ ko. Laat nga def loo xamante ni yaakaar naa yombul te tey jii nii ku ma fi tàllal sama micro rek naw na la fi muy mag di xale di góor di jigéen ñëpp la naw ci jëf ji nga xamante ni moom nga jëfal Serigne Touba ci màggalam gi maanaam woote dal ah kër gu yanj macha allah dara manqué wul du lekk du naan gétt bi nga xamante ni rek jël nañ ko amul lenn loo xamante ni rek manqué na ci gétt gi ki nga xamante ni tamit moo di sa soxna Adja moom tamit jàpp ci bu baax a baax mi naan yi mi ngi ci toppatoo mu ngi ci lépp ah, laxaat ah, lan mooy seen secret. waaw mais euh, secret amu ci amu ci dañu dëgg na dëgmal koo xamante ni si li ma naan mus xam la Serigne Touba euh, man dama dama dama am émission tey mënu ma ndax kontaan ndax euh, Serigne Touba daal bis bi nga xam ne yàlla fay na ko. ñun luñ ci munti def wallahi naw ma ko man lu ma ci munti def rek naw ma dama koo xeeb man noonu laay dundee ci Serigne Touba maanaam lu ma def tey wan naa ko ginnaaw fi mu toll noonu màggalu déwén laay wax mais màggal gi pare naa ci. ci ni ko gars yi di waxee maanaam bu ma paasee dimanche tey gi lundi laa daajaat beneen condamné pour jëm màggal. non duma daaj daane man lu ñëw dama ko ci xëpp. Serigne Touba kenn ko daajal condamné da ngay liggéey at bi yëpp xëpp ko ci moon la boppam. sëñ Touba yàlla da koo fay. ana lan ngay wax tey sa xarit yi sa am di jàmm yi sa rakk yi sa frère yi sa sœur yi ñëpp ñoo xamante ni bàyyi nañ lépp lañ jàppoon ñëw dalal la ci sa kër gi. non kontaan ci ñoom trop. parce que man ak ñoom nekkatul ay frère ñoo bokk ndey ak baay. ñëpp bu ma limee tey damay juum. te ku ci nekk da nga indi sa teraanga indi sa doole def ci. su ma limee damay juum wala du ma matal. te ñoom nag ànd bu dëggu. dama ànd ak ñoom ànd bu dëgg du àndu tricher du àndu falaxoo du àndu jayante àndu dëgg la ndax boo gisee niñ toogee fii dañoo wane ni kër gi seen kër la su ma waxee ba jeexal te santuma suma waajur suma yaay moo toogoon fale ndax bu li na bu nag lekkee alom na ko gërëm a cooy lu am rek sama yaay la moo ma jàppale ba ma toll fii kon maa ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax di gërëm koo xam ne nag boo ko tudd sax su ma waxee rek ñu xam ki may wax muy suma soxna Adja Lo chaque grand homme comme ni wax naa ko rek y a une grande dame mu mat grande dame nag taxaw sama ginnaaw taxaw sama kanam mu mat soxna kenn du ko dégg ci dara samay ndigal rek lay déglu bëgg ma fonk ma dama jàppale kon kooku mënu ma ko fay dama koy ñaanal comme ni ko waxoon rek ay doomam dem ba di ko defal xeetu teraanga bu ne mu fekkee lépp nag moom mënu ko fay dama koy bàyyi ak yàlla. ndax li ma gis fii nii ëpp na jéggi na dawee est-ce que déwén doo def R plus 12 benn yoon. non man kay fi mu xam nga lu ma bëgg nga ñaanal ma ko. terrain yi ma dendal bi ma dendal wallaay li may wax nii dama bëgg koo seetaan ñaanal ma terrain bi ma dendal balaa màggal gi bu jógee ci màggal gi borom jaay ma ko ci barke Cheikhul Khadim ma yokk ko ci kër gi ndax nit ñi xajatuñu fii yow xam nga ci dara ndax fii nga daal booba léegi xam nga ne nit ñi xajatuñu fii euh, mën nga louer chaise louer ah wut ay sees wut ay matelas mais nit ñi. kenn moomu leen. moo tax booy lebal la lebalal lu baax. booy def loolu gis nga le temps c'est le meilleur juge. adduna amul solo nañu rafetal xol yi. te jàmm. te xam ne adduna amul solo adduna jeex na ba pare. lii dafa rafet. lii dafa rafet. wallaahi kontaan na trop kontaan naa trop. salvi baqa abi li fika yàllaw bismillahi